bi sant Serigne Touba ñaanal Serigne Mountakha xaadimu rasul mu yàgg fi lool ci wér kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mi ngi am ci dëkk ci réew mi yooyu wax nag dama ne woon duma ci wax ndax pili di lu toll ci ñetti weer euh, rumeur bi mi ngi am wax yi mi ngi am waaye danoo wax ne fu yu mel noonu amee euh, lañ cay saxoo. mooy ñett ndax wax dana am nga wax ca ba wax ji ëpp mu soppiku géej nga lab ca wala nga jëf ca ba jëf ji ëpp mu soppiliku gaynde fàdd la ma ne nag naa jël tekk ndax tekk moom la suñ borom baaxoo takk lu benn néeg def ci ñaari lal benn lal ba mu boole ci sëñ Modou Moustapha ak sañ Mor Soxna mu taawu Maam Mor Jaara beneen lal bi ci des mu boole ci Cheikh Mamadou Fadel ak Serigne Abdou Dia bu xëyee kenn ku ne mu jox la kayit ak daa nga bind ba weer wu jot kenn ku ne bind juróom-ñaari kaamil par euh, ci lan weer wu jot kenn bind benn kaamil mu nekk 28 kaamil moom la Serigne tu njëkk a moo dëkk bi di Touba ñu wax ne it ne loolu mooy sunu wàccukaay ci yoonu murit kon dëkk bi di Touba sun maam it am ci kër yu wuuf jumaay Touba kon jàpp na ne am na fi ab cër yépp wax yu ni wax ci képp ku sant Mbàkke kenn waru ko koo xam xalaata waxal jàpp naa ne waru ñu ma koo xalaata waxal rawatin nag mu jëm ci ku sant Mbàkke ndax jàpp naa ne ñun ñu tuddee njabootu Serigne Touba ñun ñi nga xam ne ay julli leen bu demee ba ay kàddu ma tudd ma tuddee ma boppam. waññiku ma dem ba war a jël soxna mu yëkkati doomam jox ma fépp foo mas a dem ci jàng daar alxuraan moo ma fa yóbbu man ak i rakkam ak doomam ba ni ma mokkalee alxuraan ma wayru tukki mu yóbbu ma tukki ma war a am soxna mu yëkkati doomam jox ma kon jàpp naa ne danañ war a mën a xalaat ci biiru njaboot leneen lu lu lu loolu wax ji nag bi mu amee mi ngi ma fekk ci élection dëkk bi fii lañ doon réunion ba xaaj dëkk bi def ko 10 comité man ma jiite comité bu xaayar bi kii ci sama wet di maam Góor Diop nekkoon président bi ak ñii ma ko àndal ñëpp ay délégué quartier Umar Seck ak ñeneen ak ñeneen ci ñi fi toog kenn ku ci ne ci ñoom am nga ay responsabilité boo xam ne nii sa wàccukaay ci xaayar am nga ko maa ngi ñoom ñoo daan ànd bu xëyee 10 heures ci suba ba 23 heures ba ba ba ba 3 heures matin loolu nag jàpp naa ne. képp ku daan ànd ak di ko def boo demee bay toog di wax lu mel noonu war na noo dikk toog fekke ko moo waral seen toogaay bii tey ma koy rafetlu bu baax a baax ndax diir élection yi maag ñoo may ànd mbir nag mooy damay xam ne am naa ab cër ci seexul xadiim ndax fii ci tuubaa la la xew xewe woon fii ci Touba lan wëññi ko woon fekk si woon seexul xadiim ci këram gii ci daaru ma naan ne defee denc ay armée ñu koy wisit kon tey bu ay wax yu mel noonu demee ba am ma ne duma ci wax ñu koy wax ci dëkk bi ma ne duma ci wax ndax ñi ma ko seqal dafa am lu ñu boole loolee ñu boolee ci jamono yooyu bi élection yi jàlleet dem naa ba bëgg ko yëkkati def plainte wàññiku woo visé ci sama biir kër bi ma ko wooyee moom ci jëmi boppam mu defal ma constat kër gi ndax wax ji jamono yooyu it ñi nga xam ne ñoo doon yëkkati kàddu yooyu demoon naa ba bind plainte contre x ak njabootam la ni nokkee sama njaboot noonu la nekkee sa njaboot tey jii bu nu amoon yeneen yi jafe-jafe feneen yow yaa leen di lijjanti kon foofu li ma ci mën a jàngat tax ma yëkkati lépp teg ci suuf bi ma ko yëkkatee tey teg ci suuf tey nag suñ demee wax jooju di continuer ba nga xam ne ba nga xam ne police déglu na ma ànd na ma waa digit ñëw ci kër gi ñu wisit ko loolu it benn côté bi nooy jëlee xale bu ndaw di ko denc ca yor ay gone yu ko gën a tuuti ak yu tolloog moom ay at ak yu ko mag waaye loolu visé war na koo mën a setal police war na ko mën a setal ndax fukki nit ak nangam moom fu wàccee sa kër vérifié yaakaar naa dajji karo rek fa des xanaa kon waaye beneen bi ci des beneen waxee da cee am am ñu ne ci élection yi dama ko jël yóbbu ko Dakar jox ko président pour ñu def ko sacrifice ci élection yi ma jàpp ne kon foofu ci yoon war noo continuer yaakaar naa sax xanaa dem pale war a gëstu ji wala ñu dem ci président war ko laaj waaye man li mag ay julli leen àqan lu ne mën nañu koo waxal. waaye wax ji day bëgg a ëpp ca duna wax ni lu ëpp tuuru bu ma amee cinquante ci ay noonu dëkk bii cinquante personnes tamati ci ay noonu yu ma bañ it ngir président Macky Sall ma nga ca waaye ñun dañoo am benn gëm-gëm benn engagement gëm-gëm boobu ñu ak engagement bu ak suñ gëm ku ñu ci jàpp ci noonu ku ñu jàppee ku ñu ci bàyyi ci noonu bu fekkee ne nag dëkk bii di Touba kirim la ci jàppale président Macky Sall. kon loolu moom dama koy posé waat question bi waaye man lu ne man na ci sëñ Touba ñu jàngal alxuraan nga am ci sa cinquante 52 ans fu ne nga dem fa ci àdduna lu ne nga xam ko ci àdduna jàpp naa ne weesu nga état bu mel noonu ca ma nekku moon candidat du élection député du élection locale man ab candidat laa doon jàppale kon lii laa ne woon tey naa woon nit ñi ndax ñi doon samay kóllëre ak ma ànd ak ñoom siir ba élection yi jeex guddi ak bëccëg ma ñu koy nekk ci ñu doon dara ci biir xayara doon ay def man si assumé lépp lu ma mën a waxal moom si assumé lépp lu ma mën a waxal li am solo ba ilaa yu mi diini muy lu ñaaw duñ ko gis mukk duñ ko du du ma ca fekk mukk lu ma nit mën a waxal it mën naa koo encaisser ndax xam naa ne munumaa gën gën jëmi diif munu maa gëm yonent yi munu maa gëm seexul xaddim yi sañ ci dëkk bi lii laa ne woon daal ci gàttal nako wo waxtane ko ak yeen xexluuma ma kenn xuloo ma mi ngi and ko dalam ak tekam tekam jojje nak ci la nekkon waye munu mo ñak genn pour waxtaan ak nit ñi leeral ak nit ñi euh, bi nga xamé ne wax ji amna man ci sama jëmbi boppam euh, maa ngi ko defon ñoom dañ ko def en tant que dañuy enquête defuñu ko ngir ni plainte parce que kenn plaintuma xayna na nañ ay remor ci remor yi ci rew mi mom bari na buñ ko doon deglu am na ñoo xam ne nit ñi xëy na épel ngi la leen seen dossier ci yeneen mbir ah ci taxuñu sax ñu yóbbu leen ñu leen di enquête waaye ñu leen di kii mais yooyu yëpp amul solo lu ci nekk rek ñun xam nan ci lu ci bari du ci yoon ak liñ xam lépp la ñuy toog fii di ko wax waaye li ëpp solo daal euh, mooy keroog ajjuma bi ma julee ajjuma ba noppi déglu nan ma bi ma dégloo ba noppit ànd na ma ñoom ñu ñëw ci kër gi xool na li ne xool ba wan na gisuñu dara dem nan euh, kon foofu moom enquête bi ñu ngi continuer kon loolu moom amu ci lu ma wax. ay information ci réew mi lépp lu yëngatu wala kilifa gu man di doon bala ñuy wax wala ñuy def lenn war naa doon ki koy yëg ki koy xam kon kooku moom it yaakaar naa ma moom weesu naa war na ko yëg wala yëgu weesu naa foofu moom. xam nga moom xam naa wér noonu ma la wax dafa am moment boo xam ne xëy na wér mais ci wàllu sëñ Tuubaa waaye ki ci gën a jege mooy ki nga xam ne sama soxna la nga xam ne moom maami xale bi ñoo bokk benn bàyyi muy seex Cheikh Mamadou Moussa Fall sëñ Modou Bousso Dieng kon kooku moom it waneen naqar bu ma ci am am na ci wu ko ëpp ndax damaa am moom ay doom ci ay doom yu ndaw yoo xam ne nii même at ak xale bi la ca bañ nañ ko ba ñoom bi ñu koy wër bi mu ñëwee moom ñoom ak samay doom ñoo ànd ak euh, euh, euh, ñoom di wër xale yi kon loolu it ñoom it beneen naqar la waaye alhamdulilahi rabbil li sant suñu borom continue di ko sant ay nag noonu moom kenn ku ne xamul fu mu jógee ci ab dëkk boo fa nekkee def lu rëy ci ay élection ñëpp xam ne nituk engagement nga ñëpp xam ne nit nga koo xam ne am nga loo gëm man sëñ Bamba rek laa gëm gëmuma keneen ñëpp xam ne ne dëkk bi képp ku doon kilifa it la ma seq yow ci jàmm maa ngi koy seq yow waaye xam naa kan mooy sama bopp ci dëkk bi li ñuy bañ it ñu ci bari am na ñoo xam ne ku xam boppam gëm boppam la ni bañ ñun nag moom suñu bopp xam suñu bopp xam li ñu sëñ Tuubaa defal yàlla dogal na noonu lan bindoo noonu lañ bindoo bokk na ci wax gi bokk na ci tuuma yi ci yooyu yaakaar naa ne nee naa la képp ku baax ku fi jaar moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu politique toujours ñi ngi am ay baat yu la koy teg kon kooki duma ko bañ ndax gënuma ñi nga xam ne euh, euh, euh, jàll na li am solo daal mooy ñaan yàlla yàlla di la musal ci li ni teg ci waaye bul bañ ñu koy teg ci sab der wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu